مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا صل وسلم دائما ابدا على ميدان وادي جاسم جرم أنيان جمال بتيجي تلومي دي نفس دي سونك سماوات président Macky Sall gox su ne soo jëlee njëkk tàbbal ko ci xolam yeew nga ci baatam boo xam ne balaa gore dala ko fay buur nag koy fal pexe bu jubee yàlla nangu waaye ku yàlla nar ta fal doo fal qul illahumma malikal mulk tu'til mulka tu'til mulka tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudillu man tashaa bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir alquran du leer wax la joo xam kenn mënu ko taal kenn mënu ko interpréter Muhammad nga wax ni yàlla yow mi dajale tur yépp la yi la yàlla yow yàlla ci yow nga jagoo ko yow rek yaa moom bii ku fal yaa ko fal ku folleeku yaa ko yaa ko fol ku am tedd nga ci nguur gi yaa ko ko jox waaye bu ñu wàccee jox la safaanu tedd nga yow la yow yàlla kon yàlla moo fale bi mu fale képp kuy jullit dafay nangu dogalu yàlla kon monsieur le ministre ñu ngi lay seedeel ni sëriñ bi ak njaboot bi ñi nga xam ne président def na ko ci dëkk bi daf ko ci kër kilifa diine yi ci des damay wax toujours ni giléem soo bëggee xam dooleem xam ni mu tomb da ngay jaar fa mu jaaroo boo fa jaaree xool jeexital yeeg tànk yi nga xam ne ci giléem a ci jaar te nag amul benn kër boo am ne doomu aadama dana fa dem xool a bëtam te gisul jeexitalu son excellence a Macky Sall waxuñu ko ci wàllu politique waxuñu ko pour leble wax bi waaye dañu ko wax parce que lu ñuy laal la lu ñuy gis la lu ñuy dund gannaaw loolu monsieur le ministre dañuy lii yëpp na bu baax taxawaay bi nga xam ne lépp loo xam ne mos nañ ko wax ak yow mbaa ñu jëflante ko ak yow yàggalañ ko sëriñ bi sëriñ bi ci boppam ñu tam def na la doom def la xarit jàpp na it ni li Cheikh Sidi Moxtar Kuntiyu radiyallahu anhu di wax ni ñii jiga buur ñett lañu kii safaan rek la xam moom rek lay dund moom rek day xiirtal buur kooku lu mu am moo ko yittee def dafa ànd ak buur lu buur def baax du ko ni baaxul du ko ni baaxul kii nag dafay ànd ak buur di ko xoolal su fii baaxul mu ne ko fii baaxul day la kon doonte daf koy xañ cëral nee na jàpp na ni kon yow sa taxawaay allahu akbar sëriñ bi nee na ñu ngi lay yokkal sa ngërëm ñu ngi yokkal sa ngërëm moom ñu ngi ko réew di la xamal ni moom ay góor lañ ay jullit lañ képp ku la defal kenn nga teral loolu lay nekk ci seen xol bu ñu lay xool say bëtu xol lañ lay xool ñu ngi lay xamal it ni réew mi nga xam ne dañ koo bokk ñun ñëpp te mënuñu koo séddoo te kenn mënu koo baal sa morom te faw ñu dund ko sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala dund boobu ñu dund ko ci jàmm ak dal ba réew mi fi mu jëm te mu jëriñ askan sénégal yàlla yeggale ko ci ci barke yonente bi alayhi salatu wassalaam مولاي وسلم دائما أبدا